ci nit ñi la ko def dama koy misaal toujours ne mi ngi mel ne Macky Sall mi préfet préfet Louga ba ba nekk Louga kookaa fay Macky Sall hmm. waaw ñun ñooy préfet yi ñun ñooy àdduna ya, ya, euh, euh, fil ardi borom xam-xam yi préfet ca Louga moo fay jàmm piala si senegal mo fay <laughs> ina jahalna khalifatan fil ardi waaw dégg nga àdduna ji yalla ñun ñoko fi nekkal kon bu kan nekkee yàlla ci ko suuf nga ne doomu aadama hmm. waaw waaw force la kay hmm?